digante jóg ak tok lu ne man na faa xew mu ne walaw nasaa'u la masaxnaahum ala maxaanatihim dama wér yàlla la soob wallahi fi nga tok di nga essayé jóg bu nexe yàlla nga mel ni musoo jóg docteur Karim xam na lool visiter nit ne yow dara jotu la ci saasi mu ne la maa ngi dem bàyyi la àdduna ci dara kon bakkan yàlla bu la ko xeewalee boo ko tuutalee def la ko bàyyi moo tax am na ku ko soxla ñàkk ko moo la ëpp fe pexe moo la ëpp doole alhamdulillah alhamdulillah koy sant bu baax a baax a baax a baax ginnaaw loolu ñuy baalu àq waa Cees alaaji saane ak mbokk yi fa ñëw du Saane ay oto yu bari bari la indi indi tudduwuñu leen waaye yëguñu ko ndax lii tax ñi ñëw doy na leen Cheikh Moustapha Bassène kilifa la ci Casamance barke démb rek la jógee Casamance pour teewu bés bi ñu ngi koy dalal di ko won ni bés bi ak jataay bi moo ko moom di ziyaara ñépp xam naa si sas de xawma kan moo koy nàmm de waaye woykat yi moom duñ ko nàmm <laughs> xam nga dañu xaw a sore jigéen yi comme jigéen yi leen di may xaalis <coughs> ku leen laaj de ah déwén nañu déwlaat Cissé ñu ne ah déedéet Cissé moom baaxul <coughs> ñu baalu àq suñu waajur yi fi ne sam papa Omar Fall ak ñi mu àndal waa parcel tabaarakallah ah fu ñuy daanalee wax bi mooy fi ngeen ko teg rek mooy politique ak diine yàlla ñett a tax mu binduñu ñu ne ko benn mooy lal mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni ngeen jaamu ma rek jaamu yàlla dafa am solo ci yëngu doomi aadama boo xamee ni moomoo sa bopp am na ku la moom te bàyyu la ak sa bopp am na lij bu mu la teg boo ko dara daraayee rek du la jig di nga bàyyi xel ci sa bopp am na ñoo xam ni fu ñu nekk ñu ngi ci jàkk ndeysaan boo leen fekkee sax ñu ngi football ñu ngi jaamu yàlla ndax foo taxu leen jóg du ñu gaañ ku leen gaañ te gu leen ku leen gaañ tam ñu baal la jaamu yàlla nit ñi buñ ko génnee ci sëy àndandoor lay nekk te du yàgg bu yàggee tamit du neex buñ ko génnee ci juddu ci jur dañuy mel ni mala dal na tubaab yi de te ñoom ñooy suñu professeur mu ngi ñëw ci ñun amaay doom duñu jeexal dara waaye yow nga tumaranke doo am koy waxal surtout ko lay toppatoo surtout ku lay yëg buñ ko génnee ci mbokk te loolu am na de bare na ku torox ci jamono ji mbokkam yi ñoo ko toroxal amoon na jamono boo bari mbokk doo neex a jéw waaye du bii jamono de pour ñu jëw la il faut say mbokk teew bu ne ma ah ndeke xam ngeen ko <laughs> ah ba ci kanam rek waaye bu fa yàlla nekkee kenn ku ne di bay xel ci yàlla doo yàq te doo seetaan ku bëgg a yàq te ku yàq da koy yàqal boppam waaye doo nangu mu yàqal la yàlla dafa am solo ci mbir de parce que yéen a ngi dégg sociologue ngeen di wax waaye sociologue sénégalais yi duñu wax dégg zéro point dañu ne waaw parce que délinquance yi bu li mu fi bare ñàkk moo tax ñun ñoo gën a am suñuy pàppa yi suñu papa yi ñooy gën a am seen papa yi waaye benn bandi nekku fa parce que seeni idée yi idée tubaab yi rek lañuy indi man li ma am ci mbubu sama am na ko li papa mu am ci mbubu papam am na ko waaye taxul seen jikko yàqu mbir mi du am am ak du ñàkk milliardaires yi ñooy sàcc suñuy milliards te ñun amuñu dërëm mbir mi jikkoo la te jikko diine rek moo ko mën a defar mu baax billaay sama papa Assane sama référence la buy dem campagne ñi muy àndal mu ne leen xaaral ma wax leen ñetti ñeenti kàddu ngeen gànnaayoo ko bi ngeen boo leen demee boo leen ko defee àndu leen man bu waxtu julli jotee bàyyi leen ci li ngeen nekk ngeen dem julli ñu ne ko benn mu ne ñaareel buleen leen dig loo leen munul mhm. politiciens jàng leen lool de te billaahi diggee bi moo leen di yëkkati waaye diggee bi moo leen di wàcce ku diggaloo mënul boo ñëwee ñu ne yaa waxoon ah <laughs> ñun de waaye yaa fi waawoon da ngaa ba <laughs> te wallaahi alhamdulilah ah waaw maa ngi ñëwaat doo ñëwaat dëgg boor la ko ñetteel bi mooy lal mu ne amu leen dara leen di yóbbu angalax lu ñu am bàyyi leen ak ñoom bii kadoo la bii kadoo la bii kadoo la kadoo yi bu rek yóbbu safara yow ku amul moo lay kado yow koy jox kado ñu ne ñeenteel bi mooy lal mu ne waaye waa kaw amuñu dara seeni soxna yi lañu am mandu leen ci ñeent nag ku ci def lu waroor ci li leen wax wallahi ana bari'un min zalik allahu akbar ana politicien yooyu forage bi dinaa ko kii nangam nangam te nag ndax xool kii lan la capable bàyyil boobu ñëw ci nit diine àndaa diin nit diine yi xale yi ànd ak yow kenn ku ne bàyyi say waajur bàyyi leen liggéeyal lu ñu am jox ana doo leen jàngal doo leen yar doo leen teg si siraatal mustaqim nga leen garanti leen jaamu leen ma maa leen yóbbu àjjana boo ko waxulee sa jëf da koy wax dajale mbooloo bu mel ni waxu caaxaan rek ba bërsët war nga yàlla war nga population bi war war nga ñi la yaakaar walla nga yemaloo leen ci yow ak sa papa ak sa maam te bi ngay woote da ngay ne ñëw leen ci nangam ci yàlla xam nga ni nit ñi yàlla rek la ñu waaye pour nga nax leen jël seen xaalis nga jiital turu yàlla bu ñu ñëwee nga ne leen déedéet man sam papa mooy yàlla <laughs> aka bare ci jamono ji fu xumb loolu moo ko xumbal fu bare xaalis loolu moo ko moo ko moo ko tax am xaalis léegi loolu mooy xew politicien yi yàlla mu ne loo leen def ci seenu yëngu na nekk jaamu yàlla te nag maa yel fi ji min kaw li kaddu dafa foor amul benn kaddu boo xam ne danga koy rotal te amul ku ko bind yonent bi dafa ne man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut génn leen dënd ngeen fecc boo leen sonne ngeen tas dem seen yoon waaye li fi député am valeur ba jar ñuy xeex ha waa noor xam nañ ko waa ñun wax Casamance xamuñu ko ndax ñun amuñu député ko ñu fal day ñëw fii wuti benn séeréer bu ndaw wala benn tukulóor wala benn olof tàkk ko fii toogu fii du dem fenn cinq kenn du ko gis Casamance bu mandat bi jeexee ko commencé nag ah maanaam li nga ma bëggee indil man affaire joolaa boobu affaire soose boobu man bëgguma lool dem naa parce que jëkkëram dem na mandat bi jeex na ah ku la sëyal ngir place fexeel nga bañ a ñàkk place boobu boo ñàkkee place bi ñàkk ñàkk soxna ibadatullah mooy jaamu yàlla ci jàkka jaamu yàlla ci atelier jaamu yàlla ci meeting jaamu yàlla ci gàmmo jaamu yàlla fi ngay béyee jaamu yàlla menuisier bi jaamu yàlla maçon bi jaamu yàlla foo yëngu yàlla nga fa <laughs> bàyyi ñu la neen yaa xam guddal sa kurus waxuñu la ko yonent bi amu ko wàccel kaamilu ñetti at ñetti fan bu nekk yaa xam yonent bi defu ko waaye jaam bu nekk fexe na ba mu jaamu ci jaamu yàlla ci yow moo xam marché bi moo xam ci béy bi moo xam ci xeex bi moo moo xam ci jàngale bi moo xam ci yar bi fu ne yonent baa nga fa parce que dafa bëgg a defar société نار البي واستكلفكم في الارض نيو نيو ووتو يالا كي خم خم كي ليغي كي ميتي كي كو سوف لو في جيت رك لو دول لو يالا بيند دومي ادم كو دفر ملائكه مون في دفر في دارا jinne munu ko doomi aadama rek kër boobu yàlla doomi aadama la ko jagle defar nag loolu la ñu yàlla sant waaye mu ne wala tufsidu fi ardi bada islaahiha man de defar naa leen adduna bi jag na ba pare fexe leen bu ngeen bañ koo yàq ñoom góor a def nañ góor-góor nañ bu baax ñoom alaaji Yusuf fexe nañu ba ñu daw responsabilité bi <laughs> ndax ñu bañ a tàkk <laughs> parce que responsabilité bu garaaw la laa tufsidu bu leen yàq tey amul benn yàq bu mun a tukkil adduna il faut mu jógee ci loxo doomi aadama jinne manu ko seytaane manu ko malaaka manu ko jëf ju ñaaw boo xam ni moo mën a tukkil adduna ci doomi aadama rek la mën a bàyyi ko xam nañ lool am nañu ay kano yoo xam ne buñ ko taalee rek ñu xam ne àddina dina tukki jahara al fasaadu fi l wa wal bi bima kasabati aydi nnaas te nag ñaari nit ñoo war a tabax adduna bi ñoo war a defar waaye yàq boo moytulee ci ñoom la nitu diine nitu politique waaw di jéem a nax nit ñi bare taalibe lool waaye amul kenn koo xam ne di ko teg ci yoon ndeysaan mu mosama dal sama benn taalibe def benn caay-caay bu doy waar <laughs> ma nekk ci sama saal policier eh, benn gendarme mu am ku mu àndal muy sama xarit mu ne ah dañu ñëw sa taalibe daal mun a dafa am lu mu def waaye bi ma ko waxee rek ma wax ci sa tur rek mu ne ma hii dañ dem ci moom ñu expliquer ko mbir mi dañ xam naka lañ koy lijjanti ma ne ko lijjanti ma ne ko ah loolu ko waaw loolu baax na trop ma ne ko ni koy lijjanti de xanaa caay-caay lu mu def ni koy lijjanti rek ma ne ko dañ koy tëj amul balaa procureur mu ne ma tëj mu ma mu ne ma waa man kay eh, dama def dañ koy maslaa ma ne ko déedéet njub ci ñun la war a jóge dañ koy tëj mu ne ma ñoom ñaar la mana ne kenn ki jàpp ngeen ko kenn ki man maa koy jàpp guddi minuit laa téléphoné gendarmerie ma ne leen seen caacaay bi jàpp naa ko kaay ngeen jël ko léegi comme commencé nga ngeen di tëj sëriñ booba tëj nañ seen eh, am nañ jàpp nañ sëriñ Béthio ma ne ah ko jàpp sëriñ Béthio koy jàpp sëriñ Moustapha damay yomb ci moom tool ma ne kaay jël leen ko ndax lu ko dara dara nga ne ah voilà sëriñ boobu tamit dégg naa dafa am fi kaso nangam nangam te ah, kaay mu ne ah dafa guddi ma ne seen càccaa nga fii te mënuma koo garder dem na ngeen tëj ko yàlla nattaat ma mu am bés juste téléphoné ma mu ngi jigéen soor ma ma ah diw de moo fi ñëw na mbaa sa njaboot la ma ne ko ah nuroo na ko de ma ne ah am na lu mu fi def de nangam nangam wax loolu ma ne ko ah ma ne waaw quoi bi mu waxee rek ma laaj ko mu ne sa njaboot la ma ne ah kon baax na dinañ ko lijjante ma ne ko ah leen di lijjante loi ma ne ah, dinañ ko dinañ ko bàyyi ma ne ko tëj ko. lu luwaa bi wax lan la luwaa bi wax mu ne a ah, ñeenti weer lañ ko war a tëj ma ne ko tëj ko ba ñeenti weer lee amul yonent bi moo daan ku sàcc mu dagg sa loxo ñu ne ko a ah, mu am benn soxna bu sàcc mu am juddu lool waaye ñàkk ji ko comme li xew léegi sama maamaay diw sama maamaay diw te bokkoo leen jikko bokkoo leen yoon njëriñul darajaam ci àdduna waaye fexeel nga bañ a egg ci yàlla di nga xam ni yàlla moo moom ya moo moom ajjana ñu yónni Usaama pour mu def intervention ci yonent bi ndax ñu bàyyi kooku juddam dafa rafet mu ne ko Usaama yaa may laaj intervention ci ki nga xam ne loi daf koo condamné mu ne law anna fatimata binti muhammadin sarakati la kataatu yadaha benn doom laa am fatima wallahi bu sàccoon mu wóor mani ne sàcc na marché bi laa koy yóbbu dag dagg loxoom sëriñu Sénégal yi xanaa loolu nekkul ci seen téere yi léegi caay-caay fii ci Sénégal ñaari nit ngay yaakaar politicien bi nga xam ne xanaa xamuleen diw mooy sama nangam wala sëriñ bi nga xam ne ñëpp rus nañ ko ñaari yi sa garanti pour yow nga def li naka sudul noonu moo tax Yusuf doo ci wax de al istiklaafu fil ard remplacer yàlla ci kaw suuf donc koy tàmbali ci sa bopp <laughs> moo tax moo tax li tax candidat yi bare xam nañu ko am na candidat yoo xam ne seeni jabar yi bàyyi nañu leen onze ans ba léegi amaguñu jabar kooku lu tax muy laaj muy muy laaj ab réew sa kër sax yow amuloo fa amuloo fa kenn koo xam ne mën na laa toggal bala xaalis ak mën a wax ak njub laa billaa wallaa bëri na yi ma xam ñi nga xam ne amuñu jabar <laughs> bëri na candidat yi nga xam na xam naa leen fi seen kër bu fekkee dañuy def foofu wote ñun duñu gagné seen kër la wax waaye dem nañu fekk nañu ñu nekk ci kaw fekk nañu leen fa bàyyi leen ba ñuy ñëw yuuxu rek mooy mooy mooy mooy riir bi mooy mooy rëy waaye seeni résultat bi dinañ xam am nañ koo xam ni am ñu ñoo xam ni bi ñu jógee seenu dëkku dëkku cosaan ay at musuñ faa teg seen tànk kooku naka la mu ne mu ne dafay nekk député ban député lay nekk say mbokk xamuñu la sa dëkk xamu la waaw ah, askan bi ci lu ñu nekk loolu laa leen bugg a génnee yow sax fan nga nekk bala ngay génnee nit fan nga nekk fi nga war a ne fi yonent bi nekk foofu nga war a ne fan la yonent bi nekkoon laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi anittum <laughs> dama leen yónni yonent boo xam ni député boo xam ni ministre boo xam ni chef d'état boo xam ni billahi fàtte na boppam pour lekk fàtte na boppam pour naan azizun alayhi ma anittum li ngeen jànkonteel loolu moo ko tere nelaw waye nak day feñ du kaddu yow ma nek fi 5 ans musuma la xam yang may rombu do ma faalé yow rek ya nek sa auto do sax du supporter tian yow ngay ñew sama kër nan ma yow la soxla parce que dama xol eh, eh, jafé jafé bi nek ci askan bi te yow ya ko inti man dinaa dof ba ma na naa waa baax na am na ku ma ko masaan def mu ñëw man maa ngi toog mu wax ba mu pare mu yëkkati vingt mille francs bi jox ma ma ne ko alhamdulilah rabbil alamin ma ne ko vingt mil francs bi moom ñàkk nga ko ndax man dootuma la ko dellu fii kenn du la jox benn kart carte bar billaay wallaay tallaay suñu département bi kenn du la jox carte man ma wax la ma ne cinq ans kenn gisu la fii bi mu ma joxee vingt mille francs dama defe ne sax déedéet dafa juum dama yàkkamti mu jox ma ko bi mu koy ma ne ko ah ma ne ko waa jërëjëf ma ne ko billaa wala tallaay vingt mille francs bi moom ñàkk nga ko ba pare boobu du ma la ko joxaat ndax ñaanuma la ko waaye bi fii doo ci am benn carte bari billaahi wallaahi département bi doo fi am tous mu ne ma département bi laa judd ma ne ko di nga xam nit ñi tous la amul ba léegi daf may romb du ma nuyu man parce que li ko wax loolu moo wax bala ngay ne damay faj nekk ci nit ñi bari na ay yi nga xam ne gis nga leen kenn xam nga ne ñii sax miinuñu Sénégal billaahi wallaahi xam ñu sax luy problème Sénégal ñu ngi fa la ñoo xam États-Unis la mo xam Europe la ñoo xam ni ñom xamuñu sax li Sénégalais di dund bu nga ñëwaat profitoo nit ñi lu ñu am lu ci touti loolu yi tamit ñu kof ko yóbbaat ko ñi ñi ñi ñoy jampir bala ngay nek nitu diine bala ngay nek politicien da nga wara nek nekk nit bu wóor ku doylu keroog ndeysaan bi may dem seeti président Macky Sall fekkee nga ko sax moo tax ma mun koo nettali ñi ma àndaloon ñi mooy wax ci yoon bi amuloo oto de danga nga fàtte daara bi amul nangam de da nga fàtte <laughs> ma ne parce que bugguma ak ñoom xam nga ci yoon bi boo moytulee fa falam mbir mi di bu ñu demee mu ngi nii toog lenn wax ma ko ci Taïba surtout si sama bopp loolu war la pour man nit ñi am yaakaar ci yow nga am fooy dem jiital sa bopp jiital say njaboot fekk nga nga ko de ni ma ko wax ci politique li ma ko wax ci senegal li ma ko wax ci Casamance falaa yam loolu laa xam man sama mbir bàyyi naa ko ci loxo yàlla ba léegi awma ci dara waaye ba léegi ma ngi dund donc nit ñi bala nga ne dama leen di génnee ci jafe-jafe ci wàllu politique loo leen mës defal balaa booba dara dara taxawloo askan bi taxawloo say mbokk taxawloo sa dëkk am nay politiciens yoo xam ne sax mënuñu yendu sax seenu dëkk ndax amuñu fa kër nga ne dangay tabax réew <laughs> benn ndaw si daal mooy bari wërsëg yow boo amee place nga dem tàkk kooku kooku mooy sa réew loo am jox ko azizun alayhima ma anittum al istikrafu fi l ard wa istimaruha nga xam ni kenn ku ne na xam ab réew ñi ñi ñi fa dëkk ñoo ko war a tabax te nag bala ngay laaj sama réew lan la ma war a defal xoolal li sa defal ak yow loo ko war a defal est-ce am na loo ci def candidat yu bëri bàyyi leen rek ba 2019 li sax gàcce la états uni seeni liste yi nga compté leen parce que ñoom jàppuñu politique pour dund France seeni liste muy présidentielle muy législative nga xool ñun kenn ku ne doyuloo kenn parce que bugg a gaaw a am léegi <laughs> wallaahi istimaarul ard pour tabax réew nekk ci politique yaa ngi ci boo nekkulee ci politique war ngaa góorgóorlu sa réew am na lu mu la defal fexeel nga am monnaie boo koy delloo te nag nitu diine yi nitu politique yi yonent bi dafa résumé من آيات المنافقين إذا أها mu ne ku ñu jëpp ci ars ku kenn waru waru wóolu jikkoom ñett la ñu ne ko benn mu ne bu ci njëkk bu ne salaamaaleykum rek fen commencé na ku gardewul sa làmmiñ ci fen naka ngay garde sa loxo ci yëfu jàmbur wala sonn ngeen ñu bàyyi ko noonu xam nga mbir mi léeg-léeg day diis ñu bàyyi ko noonu ah dafa jar nag ñu campagne ndax bari na mbir woote jarul campagne kuy campagne tamit na yem kenn ku ne nit ñi xam na la billaay wallahi tey du li ngay wax tey loolu moo tax nit ñi di la topp sa jikko yi démb moo tax nit ñi di la topp bu la neexee saagal bu la neexee nga bañ a saag bu la neexee mayal bu la neexee nga bañ a may koo xam ne cinq ans musoo koo may dërëm boo ko mayee fukki junni pour watel ba day <laughs> ne alhamdulilah baax na loolu loolu dëgg la alhamdulilah sàlla sant naa yàlla incha allah wallaahi boo demee dina ne kii dafa defe ni man dama dof hey hey hey kat atuñe bi ren suutoy bàkkaas yam fu ma koy woote dangaa war a net nekk nitu déggu nit bu déggu gis nga yonent bi bi muy teste boppam bi mu woowaa màkka pour wax leen ni yàllaa ma yónni xam nga fan la njëkkee dafa taxaw ci kaw doj bu mag mu ne yéen waa Quraysh yéen bani xaasim mu woo woote jiiri yëpp ba mu pare mu ne leen est bu ma leen waxee ni ci kaw ci ci biir doj bi ci biir xeer bi ka fa ñoo ko ma ñaa dee ci biir bu génnee mën nañ leen lekk est-ce que di ngeen ma wóolu ñu ne ko yow musuñu laa wax mukk fe musuñu laa xamee mukk ci fet <laughs> ca yàlla fenn xamuñu la ko gis nga de ci kaw doj la nekk est man bu ma wootee nii gëlamaan ci biir doj bi bu génnee man naa lekk waa makk yëpp mun ngeen maa mun ngeen maa wóolu ñu ne ko musuñ laa dégg fenn ngay fenn <laughs> bala ngay woo nga xool sa bopp ñin nenka la diimaalu min la bankoo kante e kam wolle tiña pour moolu ye leela moo la jumala ɓe laala wala ko hanit koko wonena boppam ku baax du wax lu dul lu baax ki nga xam musiba rek lay wax koko kooku na la la nitu musiba la ku wax feeñ mu ne la ah wóolu ngeen loolu ma ne mu ne inni rasulullah yàllaa ma yónni bokk comme dem ngeen ba yaakaar ni man bu ma taxawee ci kaw xeer man leen fii ci biir te gis leen ci benn bon bon gëlëmaa nga fa te bu jógee mën naa lekk waa màkk yëpp ngeen wóolu ma kon mën naa leen wax lu gën a garaaw loolu inni rasulullah ilaykum yàllaa ma yónni ci yéen kee tubaab moo bugg yàq àdduna bi mu séparé ñu koy wax séparation de pouvoir ba léegi benn séparation kenn wóolooku ko <laughs> soxna mi ne yéen a ko wax waaye ba léegi de <laughs> ñu waaye ñu ne déedéet amul dañuy wax loolu rek séparation de pouvoir noonu bi ñu waxee dañuy séparer diine bi ak politique bi ba léegi kenn woolu ko ndax kenn ku rek bu jegee mu dem ci diine diine bu jegee mu dem ci politique <laughs> dañuy war a ànd benn la ñu de moo tax Sénégal pour ñu nax nit ñi dañu ne ah xam nga politique moom mbiru àdduna la kon lu la neex waxal lu la neex defal mbiru àdduna la mbiru àdduna mu ngi fi mbiru àdduna boo xam ne yàlla du ko atte mu ngi fi am na seeni fond de pouvoir yi ak seen ki nangam nangam nangam <laughs> bàyyi leen yëfu jàmbur war ngeen ko rus de ñu ngi fay ay million kees yooyu ñi nga xam ne seeni akkaa nga fa ñoom amuñu dërëm nga jël say million ba jeex demaale lekkaale seeni milliards ba pare ay fenn yaa gën a mën a bind yaa gën a mën wax te dara du ci dégg hakim mu ne moo war am ñeent moo am te benn wa moo ara moo war a am ñu ne benn bi mooy la mu ne man ullima wu uddiba fa huwa rajulu saalihu nit daal bu fekkee dangay wër nit ji xoolal ci moom ñaari jikko ñu jàngal ko yar ko te nag mu nekk yariñ bu sell